jiite réew mi ñuy yàpp askan wi wër wëlbatiku di am fu ñuy jaar gauche ak droite pour bàyyi ko foofu. mosuñu ko def de. non kooku ko def élection yi fi jaar yëpp wala joxe loolu lañ jëf. kooku ko def la nga bëggoon du am. Ah, bu fekkee ni kooku ko eh, Ousmane maam Ousmane bu fekkee ni kooku ki ko def daf ko doon def pour àndal élection wala mu def ko pour riiguwaat fi. Hmm. su boobaa ay dana am leneen lu ko fi jëlee ba pare ka muy bañ mu toog fi dana fi toog far force. Hmm. ah loolu lii am ah, di ko wax nii di ko sànni te gis ñu dara lu koy nuru kay. waa déedéet gis nga fii ah, moom réew réew mi fi ñu toll. réew ku la wax mu ngi ci yoon wi da ngaa dem ba gis ko. Ah, mu ngi ci yoon la ko wax. fu ne yow mu ngi ci yoon wi. kon kon dana leer na nañ. waaw conseil conseil de fësal na le vingt cinq février fii ak vingt neuf jours. d' accord naa élection daañu tànn. waa léegi léegi lu la jeexee lu la woon ni tey bu ñu xoolee ba Amadou Ba gagné fi duñ ko def président assemblée moom kan Macky Sall waaw président assemblée. ah ah lu tax ngay ree moo kii ni ñu koy tuddati lu tax ngay ree c'est possible. Ah. da nga yaakaar loolu mënul nekk. Macky Sall hmm. Macky Sall mi la eh, eh, gis nga gis nga. Ah. ma ni <laughs> ñun daal nañu sécuriser li nga xamante ni. Hmm. mooy li ñu dëgmal. moom bu fekkee ni ma ngay ranger ay bagaasam. Ah, ma ngi koy ranger pour dem. Hmm. alhamdulilah. bu fekkee ne ma nga ko fa bàyyi di xaar leneen alhamdulilah bu boobaa ñun ñu fekk ñu jàttu ne soccat mm. mais duñ ko ko may. lu tax gis ñu leen assemblée nationale. kaña ci vote initiative waa parti démocratique sénégalais daanaka ñëpp teew nañ fa euh, bi ñu bi ñu convoqué bi membre. waa xam nga xam nga gii xam nga gii xam nga gii proposition de loi yi bëri jii def na ko fa faale ko nañu wax loolu d'abord maam Ousmane te yooyu dafa nekk lu am solo. ci doxalinu réew mi ak ci dox doxinu réew mi ñun nag ah, dafa am loo xamante ni moom la ñuy doxee nag intérêt réew mi moo ñuy tax a jóg mais pas intérêt personnel léegi nag leneen lu ci mënti xew en tout cas reporter ay élection moom nañ ko teg fële mënu fi nekk bu fekkee ni nag moom cinq jours comme ni ñu koy waxee ñu koy dégg. mën nañu xoolaat parrainage bi corrigé waat ko. mais tant mieux mais élection day am day am pare nañ luñ daan waaj la douze ans. maanaam yokk nañ ci deux ans yoo xamante ni bokku ci jeex na li am solo mooy sëgg bëre bëgg bëre bañ bëre bëre. dafa jeex ci waa parti démocrate Sénégal dafa jeex ci Karim. maanaam. da nga wax dafa jeex ci Karim commission d'enquête parlementaire bi ak. Euh, waaw xam nga seen doole ciy def nii yëpp tudd ñaari juge yu ñuy wax ni. waaw dañoo njort ni dañ leen a ger. yàlla na doon dëgg. yàlla na ah. yàlla na doon dëgg bu doonee dëgg. Ah. dañuy feeñal ni Ousmane Sonko lu moo sa wax ci magistrature bi ñu koy ŋàññi mu ngi fi am na fi. Ah. dañ koo bañal Ousmane Sonko nangul ko keneen. moo tax tey ngeen bàyyee ko waa PDS. ñu mais mais mais attends loolu yàgg nañ ko wax. te li xew bari démb wane na ko Mimi Touré yuuxu na fu nekk dégguñu Mimi Mimi dem na Union européenne woo leen wax ak ñoom te ñoom ñoo gënoon a gaaw pour wax ak président Macky Sall wala ñu wax ak magistrat yi mais lu tax nag mu Mimi Touré laa wax ah. lu tax nag ñu jóg mais bugguma bugguma ci sori daal su ma la bëggee wax daal mooy ni hmm. lu mu mënti doon nañ ko teg ci yoon ba élection yi nga xamante ni le vingt cinq la insha allahu taala hmm. dara nag du ko fànq sëgg bëree ci des bëgg bëre bañ bëre nañu bëre rek lu tax nga ne lu ñuy campagne mu lu koy tuddee lu ñuy euh, li ñuy wax naan ooy euh, génn. Pape dama la ñaan rek dama la ñaan. parce que ñu xam nga dama la ñaan man ñaanuma la <laughs> dama la ñaan nga jël sa micro sa micro nga ñëw maa lay jox añ <laughs> maa lay jox ndékki maa lay jox paas defal la njarag yépp soo bëggee sama kër dama bëgg nga dugg biir baobab bi ma dëkkee biir baaw baobab bi ma dëkkee nga tendre sa micro koo taseel ne rek jomaay wala amadu Ba wala nga ni jomaay wala kan jomaay laa la mën a tudd. Mm. wala nga ni Habib wala kan wala nga ni Cheikh jaan Dièye wala kan. Mm. bu jant sooyee nga yendoo ko bu jant sooyee. Mm. mën naa ni la cent personnes yu nekk cent personnes yu nekk. xam nga xam ñi dañ naan soixante quinze ak sama koñ laa wax. cent personnes yu nekk quatre vingt moom bee boo nga jàpp ni. jomaay lañuy ils sont avec jomaay c'est fini. Pape Ousmane. Baobab bi ñuy def parrainage bi lu jafe dafa am. commune maire moo Sacré-Cœur ci ñi ko doon def ci Pastef ci njiit laayal Cheikh Omar Sy la su juumul turam xam nga foofu pour nga génn fa deux mille wala trois mille parrain day jafe est-ce que xam nga ni dugg nañ cinq mille jëm six mille. parrain foofu waa Pastef. dañ ñu bëgg wax ni kon ay taxawu Dakar ak Khalifa ak <laughs> kon daal maanaam riir riir yi rek. <laughs> yàlla nañu yàlla yàlla yóbbu ci la vingt cinq yàlla. non yàlla nañu yàlla yóbbu ci la. <laughs> ñun nga ànd ak ñoom de. non non non mais da nga maa posé question. da ngaa nag. Oh, mais Ousmane da ngaa consigné dama ni la. yàlla na nañu man daal dugguma ci ay détails dama ni la yàlla na ñu yàlla yóbbu bala la vingt cinq. fa nga yem foofu laay yem dama ni parrainage bi daal ci commune Mermoz Sacré-Cœur jomaay ya fa gën a siiw gën a rythme gën a yëngatu gën a bëri mbooloo ko keneen ku mu mënti doon yàlla na doon dëgg ci election yi deux mille vingt cinq deux mille kii ñu ko tuddee soo koy wax da ngay mujj kon fekk si ñi jàpp ni parti classique yi ak ña nga xamante ni mën nañ leen considérer comme les hommes du système maanaam seen deux vingt quatre bi seen mbir di jeex tàkk ci réew gis nga yàlla yàlla y compris xalifa gis dama dama lay expliquer ne la xarnu bu jot téeméeri at yu det yàlla day xëcc ci kenn ñëw teg hmm. chance Ousmane Sonko la ak sénégalais yi ko jox bopp jox ko jox ko nopp maam Ousmane fan nga mës a ab parti boo xamante ni diaspora bi hmm. biir Sénégal jaaykatu caaf bi déglu bu baax li ma lay wax jaaykatu màdd bi jaaykatu légumes yi jaaykatu ngooñ bi sëfoor bi ñoom ñooy toog naan la kaay ñu parrainel la boo paree ñu yëkkati dix mille wala cinquante mille jox la ne la ñoo ko jàppale pour caution bi les trente million ña ñun trente millions la ñu laaj. mais ñaata ñu ngi ci ñu ngi ci cinq cent millions romb nañ cinq cent millions di dem sax parce que cagnotte bi mu ngi doon daw. mais xoolal commune maire moo Sacré-Cœur laajal ña fa moso doon maire en commençant par Aminata Soxna Thiam sama yaay ji maa ngi koy nuyu de passage docteur Lamine Thiam di Pape Khourès Thiam mais kañ kaña kaña la mos a taxaw ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale nekk ci partem wala sympathisant yi élection jublu si ñu dajale deux millions jëm trois millions ñëw jox kooko ne ko demal élection amul te loolu am na fi may wax commune maire moo Sacré-Cœur te xalifa maa ngi doon dégg de mu ngi woon ci levée de fonds ba. xalifa ban. xalifa Sall. levée de fonds moom levée de fonds moom it. levée de fonds kan. def na levée de fonds. waaw ah. ah. jamono yooyu man dégg ngeen doon. <laughs> man yëgu naa ko de yëguma levée de fonds ah, wax dëgg yàlla. cadre yi je que contribué xaw ma à ñaata. ci jamono yooyu for naa ko nii rek ci. fii ci élection yii nii. yii nii waajal ah c'est possible mën na nekk mën na nekk parce que tamit nag war na ko mën a ah, parce que euh, ça fait ma ñaata at demul ci présidentielle wala pour la première fois sax muy dem. Ah, présidentielle pour la première fois muy dem présidentielle. 2019 dañ ko wax. waaw ah, voilà 2019. c'était euh, kii ci côté Idrissa Seck la. ku nekkoon na candidat sax waaye Idi da leen a jaay affaire affaire <laughs> nu ñu ko tuddee ti ndaamal Kajoor <laughs> wër leen ndom ba ca ca ca législative ya. léegi élection yi ñëw nag mu wane boppam fekk ne yow booba la ñu lal ay pexe ci suuf. mais c'est bon léegi bu fekkee ni levée du fonds ah bi siiw daal mooy cinq cent millions yi bi siiw diaspora bi moom moo ko siiwal bi siiw mooy citoyen yi nekk fii biir sa ci communes yi dix-neuf communes yi nekk Dakar kenn ku nekk yëkkati la nga am muy deux millions muy trois millions muy quatre millions ba ngin gi neew gi ma dëkk nun koy defee campagne bi yow da ñu bëgg a wax ni comme jomaay mu génn ak mu ñàkk génn ñu nangul ko ñàkk campagne dana am mais man man mais yow tamit yow tamit Pastef nañ fu ñuy taxawee naan bu jomaay génnul du ñu campagne président Ousmane ko jàngal nañu te da daan yéeg ci otoom rek fu mu romb macha allah am na loo xamante ni bu ñu toogee bañ ñu ko même ñun ñi nga xamante ni nitu daara lañ mais ñun mardi la ñuy def suñu conférence de presse. waa Modap. Modap mardi bii la ñuy def maa ngi so yëgal nit ñi sax ne leen dugg naa ci comme membre parce que. Euh, ah, Oustaz Tay Oustaz Tayrou Fall ci invité wax ci wax ju rafet nekk kilifa gu mat kilifa. Hmm. mais mardi la ñuy def point de presse. préparer sa bopp ci lépp nag ci yar ci teggin hmm. ci jub ci jub ak ci pratiquer li nga xamante ni moom nga gëm Sénégal lii dafay jeex nax nit ñi. Hmm. jaar ci seen kaw jëndal leen ay vax jëndal leen ay xartum jox leen sandwich. jox leen dix mille francs ñu pare